déglu nañ leen yéen ñëpp ku nekk ci yéen ku jël kàddu xamal ne li nga wax bind nañ ko noté nañ Kër Massar département bu bees la président Macky Sall moo décidé taxawal département bi comme département bu bees la nag am na yu yoo xam ni wax nañu préfecture bi ak sous-préfecture yi état la maire yi conseil départemental lool nak mission la jot nañu ay ci président Macky pour que yoyu ñu dal di koy jublu ci problème Kër Massar te mu doon loo xam intervention yu bëri ñëw nañ ci mooy affaire mbënn mi muy inondation c'est un centre d'intérêt wante loli it bi service yi waxee bi ADM waxee li nga xam ni lañ ko liggéey gis nañ ni ci instruction président Macky Sall lu bare bare bare def nañ ko pour wàññi dangaru mbënn mi des missions boobu des continuer ci loolu tamit dañuy gëna ñaax askan wi gis ngeen canalisation ñu defar du pour ñu ci brancher ndoxu duus ak ndox bu salté bi canalisation yooyu ndoxu taw kessé kessé kessé kessé moo ko tax kon ñu ngi leen di ñaan yéen Wa population Kër Massar ñu bàyyi xel ni milliards yooyu ñu gas dugal ci suuf def ay tali ci kaw ay la yéwén ñu leen di ñaan ñu bañ ci branché ndox mu bon ça c'est extrêmement important ci li nga xam ne moom lañuy liggéey beneen bi mooy beneen sant d'intérêt wax ngeen problème mu limite territoriale problème mu découpage mais loolu faut ñu xam ni jamono moo dox ba ñu ba loolu am am na limite yoo xam ni bi mu amee. duci ci nguuru sax président Macky Sall muy Malika muy wàllum yëmbal donc loolu lu ñu bàyyi xel la dans l'avenir ndax birum découpage c'est pas fixe c'est une dynamique mais pour le moment li fi nekk moo fi nekk mais si c'est une ci seeni préoccupation te dinañ ko intégrer ci document bi nga xam ni moom la ñu war a defar beneen centre d'intérêt mooy wàllum paj mi ak wër-gu-yaram bi loolu gis ngeen ni président Macky Sall defee jokkoo ak mag déjà jóge yi ñu ci def mooy ambulance bi ñu indi mooy également décision bi ñu jël pour que centre de santé bi nekkoon jaxaay bi nekk jaxaay te gis nañ ni ken mënu koo reprendre directeur général AGETIP wax na ko léegi ñu tabax fa lu bees loo xam en relation effectivement ak ministre de la santé et de l'action sociale pour que ñu defar ko te moom wax na ci sax muy ministre bi ñu le président Macky Sall pour que ñu mën leen defaral centre boobu mu doon centre bu mucc ayib beneen bi nga xam ni tamit feeñ na ci waxtaan bi mooy

DER tamit ñëw na expliqué na li mu jot a def Kër Massar ak un programme spécial buñ fi war a def pour Kër Massar beneen bi mooy mbirum état civil génn na ci waxtaan mais foofu it dama bëgg a leeral ni mbirum digitalisation am na ko ko fi wax léegi je crois dafa yor benn entreprise wax na dëgg c'est différent de informatisation mais les état civil dafa sensible le système la état bi taxawal fi mu ne nii te nous ki liguey dañu lëkkaloo ak européenne un programme de 18 milliards pour xamni les plus luy centre état civil ci Sénégal dañ leen di numériser ko digitaliser ko stocker toutes les données au niveau du data center bi nek pour sécuriser ces données. donc loolu programme boobu mu ngi mu ngi continuer te incha dina ñëw fii ci Kër Massar beneen bi mooy liggéey yi nga xam ni infrastructure yu am solo la wax nañ ci les deux fois deux voies ak yeneen tali dégg ngeen li ci Ageroute wax dégg ngeen également li nga xamante ni moom la ci ministre Amadou Hott wax ci koppar yi nga xam ni moom moo war a taxaw.

su paree ñu jébbal ko njiitu réew mi pour que moom it mu mën ci jël ay dogal ñu commencé ko exécuter du doon réunion bu ñu def nii rek te du am suivi aha kay dina am suivi boo xam ni yéen di ngeen ko suivre ñun dinañ ko suivre les élus dinañ ko suivre administration territoriale dina ko suivre